billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman man ko nag waaye Mbàkke de xam naa ne de bu ñu soxla nga jot naan asxaabul kër fi waaw waaw sëñ si ma tudd naan asxaabul kër fi tur woowu nag ñu leeral ko kilifa yu bëree bëri ñu a ah loolu képp la de loolu dong la. ginnaaw boo xamee ni tamit pare nañ ci wàllu ijji bi dinañ ñëw ak ñoom ci lenn ci maam tàmbaleeg ñoom ci alxuraan ji. maam alxuraan gi tamit dañ koy booleeg maam comme li ma la waxoon rek ni xam ndax suñu borom moom dañuy taarifu nii xabla an tax bu duni fa in lam fa kayfa tax bu duni wasal yaa xabari bi salaami ala nabil musaba imaami waqut liele ma maqaamaati rijal bila tasal zirini wa bashir bi nijal ala man ala ya wala susadi